enguyde me amedib korvaje nambud ka janjay mbelere enguyde me amedib korvaje nambud ka janjay mbelere retanga bore tana horana de mofta jarer sadere enguyde me amedib korvaje nambud ka janjay mbelere Tetanga bore ta na khora na de mofta sere sadere. Jona. <laughs> Mari Diouf laa tudd. Mari Diouf dëkk dëkk fii benn baraak di jaay ay soutien ngos 1000 francs 1500 téeméeri dërëm. jël meer yombalee ko jaay jaayatuma damay maye ku fi romb romb sa njëriñ. ay waa jël yi waay. li ngay way mais da ngaa mën a woy barki yu jom ne fu njuñ nanaanu be foo jom ne fu njuñ nanaanu be foo demoo de sama nanda tooñele na ayca ayca ayca loo tànn deux ñeenti téeméer ayca ayca ayca tubay ayca ayca ayca ayca tubay 2000 tubay 2000. tubay 2000. loo tànn 2000 ñu dem ah. ayca ayca ayca ayca ayca loo tànn 2000 la ayca ayca ayca. waaw gis mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa ne. ñu ngi waat fii ci Petersen seet si fi xale boo xamante ni champion la ci làmb keroog gis ngeen ko ci stade Diom Iba Mar gis ngeen ko ci arène nationale macha allah muy min géey gi tey ñu seet si ko ci làmb bëgg waxtaan ak moom fekk ko ci biir fi nga xamante ni fa lay dooree waar ndax nee naa leen làmb baax na sport la gaa waaye mbër dafa war a am métier ñu fekk ko fi muy dooree waar bëgg waxtaan ak moom ci avenir am ci làmb ak fan la nekk ak lan moo waral ba léegi nii champion bi diggante daaw jéeg ak daaw ren mu ci def parcours boo xamante ni macha allah fa tabaaraka la mbër maa lay nuyu. Ah, Baye Jili ñu ngi lay fay bu baax a baax waa bisimilah bisimilah ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi waaw di sant suñu waaru waajur bu baax a baax a baax waa di sant sama gars yi ma nekkal fii ñii moom aw ma seen fay waaw ñu son ci man la trop trop sax bilaahi waa di kontaan ci yéen bu baax a baax yéen waa ah, wasaare kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax. moom a yéem lu waral min gay ki min gay ki mooy lan. min gay ki. waa mbin gay gi mooy leen rek euh, euh, sama benn garaa moo ko doon tudd euh, wuyo làmb mu neex ma lool lu mu doon def mu set wecc nekk koo xamante ne kenn la woon ci man booy xool sax après maa ne woon maa ne woon numéro 2 sax bu mais boo xoolee instant moom bàyyi na làmb man parce que numéro 1 bi ainsi maa ko féete woo waaw maanaam mbin gay gi nag boo ko naree firi ci séeréer maanaam mooy kër samkat daal waaw macha allah këru sàmmkat. këru sàmmkat. waaw. ndeysaan sàmmkat nga tuddee sa bopp. waa gis nga noonu la demee noonu la demee moo tax tamit wax dëgg fay la ñu ngi ciy sant la bu baax tamit. waaw ndax tur wi wuy nañu bu baax a baax ndax ñu ngi ciy am suñu war warseeg ci lit simple bu baax a baax waaw comme tur yi nu muy ñëwee tamit ñu ngi samee noonu nag ci li ñuy am ci lamb. ñaata at nga am. Euh, man maa ngi judd 93 93 waaw. waaw waaw. léegi ka ban année nga dugg ci làmb ak lan moo la dugal ci làmb. Euh, man 2016 laa dugg ci làmb nii arène. waaw ah, 2016 laa dugg ci làmb. ah làmb moom ñun moom ay xale lañ dañ ko doon fooye. waaw dañ ko doon fooye. di ci bëri ay vitale ay paquetu biscuit ay bonbon yi daal loolu ma dugal ci làmb ma dem ba virus bi dugg ma waaw sama gars yi nee ma yow la. ba léegi nii nii daal waaw wax dëgg fee la ñu ngi ci suturaalu bu baax a baax. noonu la dëkk nga cosaanoo. man maa ngi cosaanoo Ngunjaan Ngunjaan fu ñu wax Mburuwaay. sama mhm. cosaan waaw waaw waaw. Mhm. say ñëpp fa lañ dëkk. waaw ñëpp fa lañ dëkk ñëpp fa lañ dëkk. la demee. kañ nga dugg ci ci arène nag. làmb bëre dóor. bëre dóor euh, booy xool 2017 laa dugg ci bëre dóor de. waaw 2017 waaw. Hmm. waaw lu bëre ñaata combat bëre dóor. trois combats bëre laa bëre trois combats. Hmm. Hmm. am ñaata victoire ak ñaata défaite. Euh, benn défaite laa ci am nag. benn défaite. am ñaata euh, benn match benn victoire la. waaw. kon ñett ump ci làmb yëpp am nga ko am nga ndam am nga defet am nga match nii. waaw xam naa ñett yëpp xam naa yat yëpp waaw. ci defet la ñuy njëkkee lu muy saf. non defet da lay jàngalaat lu bari te boo xool sama première combat mooy sama première defet booba yëfu xale moo ma jàppoon rek jàpp ne ku ma téye maa la man ndax boobaa li ñu yëngu ci lit simple fu ñu dem ñoo koy moom. lutte simple fu ñu takk ngem dañ koy jël moo waral loolu ñëw estaat def yi fu booy xam nga ñàkk ci kaat api mu nekkoon lam ju ma métti trop nag mais daf maa jàngalaat lu bëri bari bëri ci làmb waaw moo ma ba fu ma toll nii nii. fi ma nee nii sa combat yomb ma fi ma nee nii koo jox avance mu daw wallaay légime noonu la demee. bi nga jógee ci défaite bi loo amaat ndam nga am wala nul. waaw ndam laa amaat. ndam nga daan kan. waa euh, boo ñaani écrit door dooraat laa daan. boo hmm. noonu la demee. parcelle man dama dama laaj benn dama laaj booy bawal. mu ne ma yow yaa ko daan kon xanaa mbapat nga ko daan. waaw mbapat laa ko daan 5 euh, millions yi newoon fii Iba Mar Diop. yàggul dara euh, semaine bii la semaine bii ñu génn la waaw. nga nii la kan. Saawaalo Saawaalo. Saawaalo. noonu la dem ñu jékki-jékki gis ñu ne combat bëre dóor arène jafe na ci yow nga am combat simple simple bi foo dégg rek ñu ne teg nañ mise min géej gi dem na fa. présenté wu na wane boppam lan moo waral loolu. waa xam rek ñu ay séeréer lañ ca lamb daa nekk suñu deret waruñoo dégg fenn tournoi ñu toog bañ a dem ndax lamb mooy suñu métier buñ ci jógee ñu ngi fii di door suñu waar kon fu ñu dégg lamb rek dañoo war a dem macha noonu la demee. Mhm. nga nga nga génn ñëwoon nga arène nationale 10 millions yi. non 10 millions yi boobu fekk na maa ngi àll ba nag. waa di bële ay tournoi dem jour boobu noonu. ñëw nañ ba Mbour sax pour ñu ñëw 10 millions yi fekk euh, jóge nañ ci benn tournoi bi ñëwee ñu woo suñuy boo ñu ne ñu 10 million bi sam di lañ ko doon bind. te ñu ngi départ dimanche bëgg a ñëw 10 million yi ñu ne ah kon de ñun de du ñu mën a bindu. ñu déggantewaat ak yenn su yeneen suñuy booy ñu ne ñu làmb day tegaat ci biir àll bi ñu depaat mbuur lañ jëlewaat oto dugaat ci biir àll bi. waaw ñu dem foofu blessure laa fa amee ma ñëw. te xaar mu weer deux semaines laa ci teg bëriwuma ma après cinq millions yi teg ma ñëw compétir si. blessure bi lu la ko jox lan la. Euh, blessure bi benn booy laa doon bëreel rek maa ko daan ba pare rek après sama baaram samp ci suuf si new yi après mënatuma bëre arbitre yi ma bàyyi leen ñu continuer lam ji ma ñibbisi noonu la demee. cinq millions yi daa mel ni biñ tuddee woon euh, ministre des sports Ba moom nga demoon mais éliminé nga ci booy bawal yaa ko éliminé. waa booy bawal maa ko éliminé. ñaata foofu. Euh, foofu éliminé quatre quatre quatre personnes de. Mm-hmm. Mm-hmm. mais booy fay daal moom ma éliminé demi final daal. booy moo la daan ci demi final. daan ci demi final yi waaw. bi la daanee benn demi final franc la am final. waa franc la am waaw noonu la demee waaw. mais loolu tamit daf ñuy jàngalaat lu bari ndax ñuñ ay xale yu ndaw lañ dañuy jàng euh, dañuy jàng rek. Mm. te booy xool ñooñu ñooñu jiitu ci lam waaw te tey jii nañ jàpp ne ku daan Mbine Gaye ki rek xamal ne man suñ tasewaatee du du yomb te damay fayu man ku ma war ma war la. wàllu bëre dóor bi foo ci toll. wàllu bëre dóor bi comme li ma la wax léegi rek combat amul moom la ñu bëgg mais gars ko wax Mbine Gaye ki rek mosuma am combat boo xamante ne adversaire bi ñëwee day ñëw rek ne pare na pour bëre foo ñu changé ko day daw am na mbër yoo xam ne ñoom ba joxlante ay loxo pare. promoteur taxaw ménageur taxaw ñu ne d' accord na mais da ngay ñibbi doo yegg si sa ñu woote téléphone ñu ne mbër mi nee na nga ko. adversaire bi bëre bi xeex bi. wala mystique bi lan lañ ci daw. moo a jaaxal. man moom a daw rek am na lu tax muy daw. ma lan la man moo ma jaaxal de xëy na bu ñu déggee ne mbin ngay kii muy ci lit symbole bi pour nga am combat booy day jafe. compétir di def yéen yi rek booy dañ lay daw quoi loolu la demee quoi. bilaahi man loolu laa yaakaar loolu la. ban nga nekk. man maa ngi écurie Bada Dione. waaw ah, Bada Dione nga nekk. waaw laa nekk. waaw di parafito nag di di nuyu sama entraîneur Ilisuke ak village. waaw maa leen di nuyu bu baax a baax. waaw ndax ñooñu lu ñuy def ci ñuñ ñun rek a ko xam. bilaay kontaan naa ci ñoom lool. écurie Bada Junior nekk. Atou Junior waa fa la ñu euh, ak ñoom mbay Guy gi yegg sil super jamono de bari na ay cargo gaay ñu ngi fa bari na ay champion bari na ay champion loolu. war nañoo mën a yaakaar ne saison bi ren min gay ki dina ngem bu dugg ci làmb bëre dóor bi. non loolu laa bëgg su sañoon suba suba suba ma tooyal pare naa chaque jour ñu ngi ci. chaque jour ñu ngi ci ñu entrement entrement yu métti xaaruñu combat de ndax ñu chaque jour ñu ngi ci lam waaw suba suba man pare waaw noonu la demee. ñaata séance ngay na par jour. instant yii deux lay laay def. boo xëyee looy def. bu ma xëyee damay dem musculation ngoon ma dem géej contact noonu la demee waaw. bëre simple bi damay gis ni koo ci jàpp rek donc koy wan ni am naa doole te xale laa te mën naa li may def am na ku ma gis stade Diop Iba Mar danga koo jàpp rek tël tànk bi bàyyi ko mu xalam. waaw lépp dañuy jàng rek. wallaay dañuy jàng rek. ñuñ lu ñu mën sax woneeguñ ko ci làmb lu ñu man woneeguñ ko ci làmb war na yàlla ah lit simple moom te damaa jàpp leen moom mbër moom boo entraîné boo entraîné ba ñëw taxaw rek danga ngaa war a wone sa bopp waaw am na yoo xam ne warul waroo nekk foofu di ci kii. ñun géej ki daa mel ni ay ay booy bawal ak ñooñu nga sonal de waaye ku ci mel ni franc euh, nu mu tuddati caaka fay euh, nu mu tuddati booy fay ñu mel noonu. foo leen gis da ngay wut foo jëm de. non buñ dégg naa buñ bindoo sax doo nangoo bind. man booy bindu da ngay téye bi di hésité. man instant yi dara diisatul ci man loolu instant yi dara diisatul ci man non ñun instant yi ay xale yu ndaw lañ waaw ay xale yu ndaw lañ entraînement lañ gëm gëmuñu leneen dara diisatul si ñun waaw man balaa may gën a kontaan sa lam ji diis poids lourd yëpp ñëw waaw boobu lay gën a wane sama bopp bu baax a baax sax waaw mais. ay booy bawol pas yooyu sax. waaw ban mbër nga euh, moom ci làmb simple daan ko ñu di ko dégg ci làmb wala comme ñi nga xamante ne jàpp nañ ni dañ ci làmb xam nañ la. bari na. comme kan li man yu ku mel ni booy bawol ay ñoom hôtel Dior Moussa Ndiaye. gaa yëpp daan naa leen. ah bari na su ma ko dul lim fii ba suba Euh, du jeex. ñi ma bëgg a dégg déggu ma. Euh, du jeex. ay Sele laa bëgg a dégg. non ay général Malika. non ñooñu tase. Ah. mais xuyu ma balance saison bii di jeex di nga dégg du doy waar. maa la wax lii. ci ñoom ñooñ non instant maa ngi si seen biir. kan moo la sonal ci lamb simple. kan moo ma sonal la ci gën a sonn. ci lamb simple. actuellement nii yi moom biram daan na ma ñaari yoon daan na ma demi final Grand Yoff daan ma quart de finale. biram man biram caaka. waaw. Caaka mooy Caaka Faye. Caaka waaw. kooku daal laa gis ne daan na ko ñaari yoon demi final ak quart de finale. Grand Yoff ñaari sorties yi ma fa def daal moom a daan. noonu la demee. waaw moom am na loo ko téewal. bu mu xam ni. ku la dóor dina la xale mag de. gars yi nañu waaj bu baax gën a pare. instant yii entraînement lekk lay laay def. waaw entraînement lekk tët nelaw ba dël sama gaay yaa ngi nii xam nañ si dara dara manqué wu ma ñoom ñoo ne sama ginnaaw aw ma dara lu may tiit bilaay walaay. lamb neex na. non lamb lamb neexul. neexul. lamb neexul daa bari ay bagages. bagage lan la. na lamb daa bari ay bagages boo ci boo ci bëggee nekk dégg dégg ci daal yi foo nga moytu lu bari top say top say entraînement bu baax a baax respecte sa bop xam fi ngay teg sa tànk. lamb yombul de. lamb ànd na ak jigéen. non lamb àndul ak jigéen. waaw foo nga moytu leen bu baax sax. àndut ak tux. tux non non non àndut ak tux. àndut ak def lenn loo xamante ne lamb dafa fiir daal lamb lamb kese la. lamb boo nee dafa fiir bàyyiwul dara. jeex na tax lamb dafa fiir. moo tax chaque jour ma damay ñaax mbër yu ndaw yi rek. waaw buñ nee ci lamba comme ñun ñi daal am ñun ñëpp ay mbër yu ndaw lañ defaguñ fi dara. combat moo ñu tox rek. te man bu may lancé côté boobu laay gan di lancé sax ndax man damaa bëgg a comme def samay moroom yi ndax boo xool samay moroom yi nii ne instant dañ may raw sax bilaa wala ndax ñakk adversaire waaw kon lamb boo ci nee da ngay respecté sa bopp chaque jour ma da war a nekk si entraînement xam nga li ñuy wax mbër mu ndaw daal day pare chaque jour ma foo ko fekk daa war a pare. kon yow fi toll nii bu njëkk-njëkk woon rek Fallou Ndiaye wala Assane Ndiaye wala ñing production wala téléphone rek ne la dama bëgg sa combat dimanche dimanche dimanche pare. dimanche dimanche avance bi ñëw tey moom lay reere tey moom lay reere dimanche ma dem bëre daan ñibbisi man aw ma lu may tiit lu may ragal estage mama yi ma toll nii nii nii kenn diisatul si man ak ku mu mënta doon man bàyyi naa gisanteeg adversaire sax hmm. man ménagère bu ne baana rek dem naa mais mbër yi da dem gisanteeg ñoom ba pare. ñu ne la baax na ba ngay ñibbisi ñu ne la waaye nee na ñu changé ko amul ko bu mos a am te changé wuñu adversaire bi moo tax chaque jour ma dama naan rek man instant bëre rek laa bëgg bëre man mooy sama problème quoi. Mhm. macha allah boo gisee taay bi nga xam ni mbër la te boo duggee ci biir mbër yi kenn du laajte ana mbër mi ci gabari bi ci ci fulla gi ci mën a bëre gi ci am doole gi macha allah waaye fi mu toll nii lan moo la manqué ci làmb. lan moo manqué no ñu xaw nañoo am euh, manquement côté jàppale bu baax a baax dafa des waa jàppale bi des na lu bari sax waaw des na lu bëri mais nag ñi ne fii nii maa leen di sant bu baax. fii maa di sant bu baax a baax. luñ ma mën a jox ci ay bolog ñoom dañ koy jënd. billaa wallaay taalaay man ñii laa am ak suñu waa dëkk. ñiy son si man képp kuy béggee mbin gay gi rek maa ngi lay béggee bu baax a baax ndax dañoo son si man te tey jii ñii toppewuñ ma fii de ay lamb yi nii nii man trois combats la am arène lit simple lañ ma toppee al bi def naa fa lu ne dajale ay nag ba sonn. bi walaay non nag yaa ngi village. ah ñaata nag nga am à peu près. bari na nag ah, bari na nag am na bari na lool. daaw ñaata journée nga jël. daaw daaw mag manuma ko lim nag. man na 15. <laughs> non matul 15 nag. mais man na yi man. waaw ma xool war naa mat ay 10 kay. man na 10. ay mise luñ ñaata ñaata lañ teg nga jël ak ñaata nag lañ teg nga jël ko. non li ma jël ci ay nag moom bari na. waaw li ma jël ci ay nag moom bari na booy xool alba sax loolu la gën a bari lu may bëre ay nag mais su dee Dakar fii nii xaalis lañ fi bëre waaye su dee alba moom fu ma dégg lamb ay nag rek fa laay jëm bëri ko. noonu la demee. jël nag yi nag yi boo ko jëlee après noo koy def. waaw keru sàmmkat. mbin gay ki yow tamit ñun dañuy sam yar bu matee ñu jaay ut liñ ciy def waaw ñun noonu la demee ñun ay sàmmkat lañ. wasaare dañoo bëgg ay nag. waaw wasaare boo leen. bëgg na nag moo bëgg nag ak sa ju beneen garab bëgg nag. aadama macha allah caméraman bi. waaw bu bëggee nag rek amul benn problème yow ak jiili boo leen bëggee ay nag rek teg leen ko ci mbin. waaw naa leen dajaleel. comme ñun dañuy dugg ci biir di dajale naa leen dajale waaw albaan fii chaque jour ñu ngi teg ay nag waaw mais ak ndagaaru fii wàcc si nañ de dugg nañ ci poids yi nañ waaj bu baax a baax waaw. jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom loo wax moom Mine Gueye ki nga xam ni champion la ndax boo ko gisee ci làmb ji bu duggee. da ngay xam ne macha allah fa tabarakallah sampion moo dugg si ci làmb te am na fu ko làmb teg am na cër boo xamante ni am na ko ci làmb am na loo xam ne mën na koo jël ci làmb kon dañuy bàyyi mbër mu tàggoo rek ndax li ñu amoon ci waxtu jot na su ko defee ñu tàggoo yeewee ku ba ëllëg mbër ñu ngi lay jaajëfal. waa Baye Djili maa leen di sant bu baax di leen gërëm ndax seen liggéey dafa rafet te lii nii rafet lañ ko lool lool. ndax lii def euh, dafay yóbbu lam fu sore sore sore waaw ndax yéen ñi maanaam si gàttal daal amuñu seen fay amuñu seen fay bilaay walaay waaw ginnaaw loolu maay sant sama ñaari waajur bu baax a baax ñu son ci man la son nañ ci man lool maa leen di sant bu baax di sant di sant sama gaay yi waa ñoom Samba Balde ñoom Sum Xaadim Ba ma euh, Mandione gaay yi ñoom Mbaye ñoom Amadou Lo gaay ñoom Ndione 2 Salman Kamal su ma waxee su ma limee damay juum. ku nekk ci marché bi rek. képp ku nekk ci marché Petersen la jàppale. maa lay sant bu baax di gërëm alkayda ba buntu ba. Mm. ñëpp mbin lañ fi nekkal maa leen di sant bu baax a baax a baax. waaw di kontaan seen di sant sama booy bu baax a baax booy may toogal ci mukaay ku mel ni xaadim euh, xaadim mu ndaw xaadim puy Ibra waaw di sant waa Ngunjaan yëpp. ñu son ci man lañ mouvement Teranga maa ngi koy sant bu baax a baax sama combat chaque jour dañ may jëndal ay bologu billet waaw dañuy son ci man bu baax a baax bilaa kontaan naa ci ñoom bu baax a baax waaw sama gars yi waga waaw mafia bi ah, sant naa leen bu baax a baax waaw ñii amuñu seen fay bilaay yëpp ñoom la ñoo may gën a yokk fit bilaay walaay taala ñoo may gën a yokk fit ku mel ni góor fit ah gars yi ñoom booy bay di ah summa ay ñoom gaa yëpp daal bëgg naa leen su ma limee dama juum billaay walaay taalaay waaw Sambay waaw sa deuxième journée bi bëgg naa cee bëri ay ñoom Mor Mbay sama promoteur boobu ah Fallou Faye ah, Poti production gaa yëpp maa ngi leen di talal loxo daal ñoom. jak sa jak sa bëgg waaw falu Ndiaye. waaw loolu dégg naa ko waaw. waaw ñu ngi waajal bu baax a baax pare nañ mbin gay ki pare na waaw talal na loxo yi promoteurs yi daal. waaw sama gars yëpp maa ngi leen di béggee daal waa Castor Tëngéej yëpp waaw waa Medina 37 bi ma dëkk maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom Abdou Dione Abdou juuf ah sama booy ñoom Modou Aida ah bàyyiwuma ñëpp daal ñoom ñëpp suma ma limee damay juum maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax. ñoom garandiaay son nañ ci combat bi ñoom Pape Thiaw ah sama pataron Aliou Touré ñoom Mbaye Diba Souleymane Bousso bilaay kulim juum dañuy sonn ci man fal bilaay walaay taalaay kontaan naa ci ñoom bu baax a baax bilaay walaay kontaan naa ci ñoom bu kon gars ay ca lu ngeen jël 2000 la loo jël 2000 la jël 2000 loo jël la dafa leer waaw. jërë ngeen jëf mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo gis ngeen li nga xamante ni moom la Mine Gueye ki wax ci làmb xale la boo xamante ni wax naa leen lépp rek kon mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bu dul tàqali ko ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf.